je pense que mën nañu waxtaan ba djubo waxtaan ba djubo bobu moy lan moy bu ci ñëk moy waxtaan d'abord ak ku yalla dogal mom moy jiite tay li des armées sénégalaises moy chef d'état-major général des forces armées moy le général Birame Diop ñaan ko ci yar ak ci jàmm salam mu gestu njabotam parce que ñi mom ak bërki démb la woon mooy lu tubaab di des frères d'armes moom tey général Biram Diop tey ci goudi, moom ak njabootam dinañ fanan ci kër tal ay lampe tal ay climatiseur yor frigidaire yor lépp kon nak, nañu guest tout ñu nga nous ne ni ñoom ak mon ak ñoom la woon démb ñu don, xeexal Sénégal di xeex ngir intégrité du territoire national Mom, il a une responsabilité noog na gestu xool nu muy dimbelé ces 79 familles pour en attendant nous avons am une issue heureuse nous am fu ñuy nek. ci man en tant que maire de la commune de mermont Sacré-Cœur proposé le collectif bi ñu avons ci sacré 1 nous jox leen le centre socio-culturel de sacré 1 courant ngi fa ndox ngi fa dëgg nak du centre socio-culturel wante moo gën mbedd ci nak moi interpeller njiitu réew di président Macky Sall moom chef suprême des armées Mou xamné ni que bi tamit njabotam la bu ci tegu tamit su ko ñu yégal ko ko ne ni que déjà ben protocole d'accord ci protocole d'accord bobu Comico danaka lu mu namm ci assiette foncière bobu lolu yépp tënk nañ ko ci protocole d'accord bobu. yégal tamit président Macky Sall que ci protocole d'accord bobu lepp lu nga xamné ne ni waa domaine danaka ci CCOD bobu yoon may na ci sañ-sañ luñ ci nam teunk nañ ko tamit ci protocole bobu wante ci protocole bobu te victime yoyu yeguñu ko won motax tax dafa amone réro 79 familles bu ci nek ci protocole d'accord bobu jox nañ la ci ben parcelle de 200 cent mètres carrés bugguma sone ci wax di nak parce que danaka fi Sénégal gagné suñuy waxé waxu suuf rek dañuy dañuy dañuy daldi di soppeeku wante suma baat ci kaw su ko président Macky Sall yëgulee ma yëgal ko fii président Macky Sall ci protocole d'accord bii nii bind nañ fii coopérative des habitants de Terme Sud 79 parcelles 79 parcelles yooyu nag la ñu bëgg président Macky Sall dimbali ba ñu ngeen xam ne ni suuf moo leen tere nelaw ñu bañ ko saax-saaxee parce que lolu moy wax ci bu ci tegu nak président Macky Sall comme ci dëkk bi lañu ñu dëkk tamit yek nañ ay djégo yi nga xamné ne ni mu ngi koy dox pour xol nu muy dimbalee 79 familles yoyu. wante dañu bëgg a yëgal président Macky Sall que ñooñu feul lañu feul lañu la ñu dëkk seen doom yi fël ñu judd bugguñu dem fenen feul lañu bëgg dess des kon il suffit seulement de réactualiser ce protocole d'accord ñooñu nak ñom tay ñu bëri ci ñom ay retraité lañu ñeneen ni ce sont des veuves seen jëkkër yi génn nañu àdduna ñeneen ni ce sont des orphelins kon ñom seen loxo jotul seen ginnaaw te ku ci nekk ci ñom soo demee ba doon retraité mënoo dugg ci banque ba banque lebal la xaalis kon ñu ngi ñaax ci jàmm salam ci yar teggin président Macky Sall ak tamit ci yaakaar mu joxe ay instructions caisse de dépôt et de consignation famille bu nek ñu tabaxal la comme tay lu caisse de dépôt et de consignation du tabaxé cœur ay Bambilor Bambilor caisse de dépôt et de consignation mi ngi tabax cœur ci ay 15 millions danaka souf ak kër moy jar 15 millions danaka fi souf si moom ku na len ba paré kon lu dess moy tabax cœur. Cœur nak caisse de dépôt et de consignation du banque rôle du liggéey di wuti xaalis wala di liggéey ay intérêt comme le dit son nom, c'est une caisse qui reçoit des dépôts et des consignations. Quand nous avons nañ pour ces 79 familles à ces 79 familles de pouvoir payer des mensualités comme à l'époque de la SICAP ou des HLM